ko ci ba mu fees dell mu kaste ko dara raxu ko loolu laa sant yàlla kooku mooy Sëñ Abdou Lahad moom nag déggoon naa ci ay wax fan yii nga ko waxee ba tudd ci tur nii Sylla baay Fall moom mu ci wax lam ca wax xëy na li nga ma ko laajee tax ma di ci wax ne la ma ci war a def def naa ko ci moom ba mu waxee lam wax lu leer la dafa wax ni Sëñ Abdou Lahad di ay jaar-jaaram ak aku doxinam wares na koo mën a bind livre ku fi nekk ñu jox la ko tey jii nga di ko nga ko tegtaloo loolu dëgg gu wér a la goo xam ne ki jëkk koo wax sa Cissé Pire bokkul ci tariixa murit kilifa la kilifa ak diine la bi mu ñëwee fii màggalu Sëñ Abdou lan la waxoon daf ni Modou Mamoun Amar wax naa leen waxi Sëñ Abdou Lahad dee leen koy teg gu ak bëccëg daa waxam du ràpp du màggat te it jullit bu ne mën na cee jëriñu giir dundam am na ñoo xam ne seen i jëmmay dem waaye seen i jëf ak seeni wax du fi du fi du fi jóg ba ba addunay tukki yëg naa ci yu bari nag ba ca menace yéen jëf ci moom yëg naa ko moom jokkoo na ma moom lañ ca war a wax naa ko képp koo ci dégg ci addina mu di ko ca menace ka wax ñàkk jublu Sëñ Abdou Lahad la képp la Sëñ Abdou Lahad nag ñàkk jublu moom la ma waxoon ci Sëñ Tuubaa rek la ñuy wax ci moom yaar dong koy waral daray xeetam bañ laa xeen xeeñ wala ni ko yàlla melal neexu la yaar yooyu nag lu ci jot coow xuloo amu ci ndax moom daraa ko ñoroon dafa waxoon ni man feek ma janoog Sëñ Tuubaa mu gërëm ma ci liggéey ba ma ko doon liggéey rek ma ñor ku andi seg taalibe nag ma téyel la ko ku rax leneen nag yaaxal a xam moom ci pas-pas la doon dox suñ tubaa ko ñoroon mu subutal doomam dara mu wutal kenn dara léppam da ko fab jox ko suñ tubaa da jax ca takk li ko yàlla may nag nga xam ne may na ko ci darajey suñ tubaa nga xam ne si tey dëkk bii nu nekk muy dëkkub suñ tubaa bii nu bokk tey foofu mën a taxaw ci addina boo gesoo ni ma nga loolu jëfi suñ borom la jox ne moo ko may képp kum naqar na ci naqar ngay dëkk ci naqar ngay dëkk boo xam naqar naqar wudul mën saafarawu la li nga xam nag duñ ko nangu mukk nag jóge jóge na fi jëf fi jëf ju rafet te wala tax ci banna lësina xutiloo fii sabilillahi amwaatan ba noppi nag gannaawam nag pexe yu nit mën a jógaat pour suul jëfi Sëñ Abdu Lahat du suulu mukk waaye dañ ci am loo xam nag nun duñ ko nangu te it ay mag lan fekke nañ fi lu bari xam fi lu bari soo fii bax li umar yi maa la bayin mën nañoo bañ a wax waaye dara umpunu mbir mii ñuy songe waajur jure dara warul ko lul li li li li Moussa waxoon maam Cheikh Anta rek amaana kuy ndokk yu bi tax baaraam ba te xam ni yaa canal ndayam baayam ba ku génne woon jëfi Sëñ Abdu Lahat ci ñi taxaw di ko attaqué génne jëfi Sëñ Abdu ko taxawaayam ci ñoom te lépp xam nan ko danañ suturaal nag du tudd ay tur waaye bu delloo ñaar nag danañ tudd ci tur yi Sëñ Abdu Lahat ku ñuy wormaal la ku ñuy sàmm la ku ñuy roy la ku ñuy téye ba faw